asalaamaaleykum àddina asalaamaaleykum Gambia nuyu naa képp ku seetaan Sahel Network TV seen xarit seen sopp seen doomu ndey moo leen kër bi bëgg a waxtaan ak émission loo yëngu ñu naan ko business profile ma am gan bu tedd bu macha allah bu ma dalal si biir kër gi bëgg koy bàyyi rek moom tamit mu nuyoo ak nit ñi seetaan nuyu naa la. asalaamaaleykum nuyu yéen sa tur ak sa sant. Mm-hmm. seen doom mu xeebu bi leen nuyu. Omaro Creation Mall of the Gambia. Mm-hmm. maa ngi nuyu nekk na la am sooyo moom tamit nuyoo naa ne di wish tamit happy Ramadan Omaro macha allah dal la jàmm ci biir kër gi. léegi ñu bëgg a xam kan mooy Omaro nga wax ñu tuuti si sa background. Omaro Omaro ñu ko xamee si benn baawaal bu xew rek. doon taalibe sëñ Abdourahmane Tilala Fall. Mm-hmm. waaw. bokk si association tailoring of the Gambia. Uh-huh. koo xam ne ni yërëm ñëpp nag. Mm-hmm. wàcce boppam ba suufee mun a dem ak ku nekk nag amul ba doole bi amul borom alal bi. ñëpp laa yemale. Mm-hmm. ku munti doon rek amaroo mun naa dem ak yow. Mm-hmm. loolu nekk na lu am solo Omaro man mi sax boo ko waxee ne gëm naa ko parce que nekk nga koo xamante ne danga wàcce sa bopp. bo ñëwee yaa waxtaan ak ñu nice wacce sa bop sa dafa tax fi nga bëgg ag sax do ko xam yalla daf lay nekk di ekkate rek kon lool nekk na lo am solo Omaro legi ñu bëgg xam depuis kañ nga dugg ci ñaw. waaw man ma ngi commencé ñaw depuis 2009 mën na né fin 2008 la. ba 2009 la mën a wax. c'est ci la gëna xamé affaire yi. depuis bo ba ma jàng ñaw ba 2014 suma bos berma jangan hanya ñëw masih banyak saja fa si maam Cheikh mhm. jar si Masir ya, nyep apa yang mau jaga film Senegal dem mhm. Sénégal ut fa xam-xam tuuti ñëwaat nekk Gambie jaar naa mhm. fu bari daal afiri bari mana mu nga jaar place bari bari fu bari la jaar nag balaa ma yegg fu ma yegg tey waaw ba tey ma nekk si job bi di job ba yàlla suturaal ma mu am place di job maa ngi ci mool bi shop 74. Hmm. di liggéeyaat suma benn sista bu baax nag koo xam ne nii moom mun naa nekk si man la bokk. di Sali Cissé. Hmm. ñun ñëpp ay doomi baay lañ Amar Cissé Sali Cissé. Hmm. soo ñun ñëpp benn lañ am fa tamit ay booy am naa fa lu mut ñe foo booy ñëpp ngi liggéey ak man loolu sant yàlla la. booy yoo xam ne nii maguma ci kenn nag. mais gars yi dañ ndogale yàlla xam na ne lu yàlla dogal rek. dañ war a nangu dañ koy mhm. waaw so loolu la rek. Mhm. macha allah Omaro yow moom jàmbaar ko depuis 2009 ba 2020 bii nii ne lu nekk loo xamante ne am na solo te youth sax suñ bàyyi see xel suñ si bàyyi xel neen jàng ci yow tamit gën a am jom li nga xam ne loolu la def léegi yow ban expérience nga ñu mun a wax ne loolu nga jot a jàng si wàllum ñaw. waaw ñaw lu ma si jàng bari na nag. Mhm. munu man du xëyuma rek ne lii rek laay ñaw. man ñëw lépp lu nit di ñëw mën naa ne dama koy ñaw faruma boor bi faruma boor be lépp damay ñëwal jigéen di ñëwal fu ma bopp di sañse am na solo man kay gis naa ko fi nga génn tey baax na sa waayet moom macha allah. loolu daw la c'est yet ma bett rek <laughs> xam nga mooy loolu. Mm, waaw kon dégg ngeen mii mbiri seetaan Omaro nee na dañ ko bett kon bu buñ ko ko waxoon <laughs> balaa bés bi du muy mel. ah mun naa demee neneen de. mais ah. lu yàlla dogal tamit tey li la dogal. mu nga def beneen yoon tamit waa si gis nga. <laughs> mu ngoog léegi yow nga ne da ngay ñëwal góor da ngay ñëwal jigéen léegi yow si ñëwal góor a ñëwal jigéen ba moo la ci gën a ban moo la see gën a jox stress. no man man moom xam nga man no stress laay dund. no stress nga dund way amna bo xamne xam lay jox stress de. parce que suma maas jigen ni bari setané dañuy ñew rek. ni ne o su suma ñew ba nii ak nii ak ni ba do di am problème. ci yoy non non non non non. non man ku ñew rek damay dem ak yow. c'est que ñew mëno bañ ni ñi xapu la ciow li ngay ciow la. bo taré le nit ñoom foog mu xapu la ciow waaw ba nga dugg ci ñew da ngay nango nek ku mën a accepter coow. Mhm. koo xam ne da ngay nangu coow mais boo koy bañ tamit do doon ñawkat. waaw ah, loolu ñaw mom fa nga nangu coow ñu saaga la nga nangu lu munti xew dal nangul c'est que yow ya-, yaay liggéeyal nit ñi nit ñi mhm. boy liggéeyal ni da ngay wàcce sa bopp xam ay mhm. doomi adam ngay liggéeyal. ci lool la. euh mu ngoog léegi yow Umaru yan façon ngi ñaw nga day gëna ñaw no man si si lu hmm. la waxon rek e man lepp lay ñew. Lolu nit ànd rek nga dag. damay ñew, ragal man ragaluma dara. dama ñew simple dama ñew design hmm. lo lu nek ko koso dañuy ñew bañu dara lepp dañuy ñew. Ha, léegi yeen événement comme yeen event nga xamantene comme sa ñew nit naka fa mëna sol dem fa. event bu nek. ah man fu ne wax na la fepp la mané. <laughs> Ragal dara man man mom dama waaru sa te dara xewoon parce que gis naa gis sa yeey ñew yeen ñew yo xamantene ma sha allah. te Omaro dafa nekk koo xamante ne ku mu daggal rek dafay kontaan li ñuy comme sa duration time bu comme nit ki su ñëwee ne la andi la tey ñëw ne la suba laa ko soxla ndax yow soo waxee nit ki time bii nii ñëwal nga jël si sa ñëw ndax bu ñëwee dina ko jot heure boobu. waaw si man ñu ma xam dëgg soo leen hmm. laajee. waaw ñu ah. xam dëgg. Hmm. ñoom soo leen laajee kan mooy Omar. c'est que man lu ma munti wax rek dama koy def lu ma mënut mënuma ko mais lu ma ne mun naa ko rek jaaxal ne loolu man mun naa ko. man ragaluma loolu. mu ngoog euh, léegi yow nga ne am na ñeent ñoo xamante ne yaa ngi liggéey ak ñoom comme léegi yow da nekk di jàngal sa apprenti wala ñoom tamit day ñëw foofu noonu pour euh, di liggéey rek di dem. waaw am na ñaar yoo xam ne nii suma mun naa ne suma apprenti lañ. Mhm. ñaar ñi dañuy liggéey ñu leen fay. Mhm. xam nga man kenn mënuma lépp mënumay toog si machine yëpp. waaw waaw kii day toog fii ma toog fee ñu jàpp liggéey. loolu la rek. ah léegi yow ñi nga xamante ne comme dañ bugg a beru léegi yow ñoom bu ñuy bàyyi comme boo leen ber naka nga leen di bere. waaw xam ber nit ki. du xëy rek ñëw ci yow nga ber. Eh? Mhm. foog mu jaar tarbiyu comme noo ko jàngee xam nga tamit. nit yi tey dañ bëgg a xaalis dañuy ne mën nañ dañ bëgg a dem. waaw yooyu nag façon yooyu boo demee feneen. Mhm. mooy ñu yàq piisu jaambur yi. Mhm. léegi nag boo yu ma amee na ñoom dañ nangu dogal ci lu ma la ko waxoon tamit maguma leen mais dañ ma jox cër. Mhm. ñu ngi ñu ngi góorgóorlu nag mais suñ demee ba yàlla dogal ne man soxoruma du bëgguma téye doomi jaambur tamit c'est que man doomi jaambur la maa ngi liggéey pour teral sumay waajur. ñoom it dama bëgg ñoom ñu liggéey pour teral seeni waajur. ñoom it suñ demee ba sen tam jot ah mais leen dem len ndax man damay bo daf may leer ne ni mun nañ luma ma mun du ñaaxa ben pisu jambur di def liggéeyal sen bop amal luñ traverser ni wajur xam mhm. ku ne da nga bëgg traverser wajur man mi tok tamit lo la bëgg jeexna ah, lo rek la waaw loolu nekk kan na lu important soko sété waye ndax ñom bu ñuy dem leen dé defaral certificate nga xamantene ñom suñu palas ubi place wara dem fenen di leen certificate bi né Omaro mo ñu jox certificate bi mokal mokkal neen ci li ñuy def mais da ngay e goré rek hmm. gis nga mo togué ya, wonu mala certificate hmm. wax nalakan la kan moma jangal ay sa xarañte dag ci sa bo moom gis na waaw si comme wax naa la kan moma jangal ñom ñoom suñu gi né ñi goré ko ma am nga certificate kayit la rek am lu am solo la ci doomi adama nak c'est que fo dem boo ko wul do liggéey mhm. mais comme moment bi xam nga fi amuñ association téyir bo xam ni da ngay am certificate comme nga comme xam nga téyir yi ne fii ñëw kat yi ne fii nii mhm. dañ lay ber ñaanal la wo say wajur na la wa ber nañ ko mu dem uti fu mu so soo demee foo jàngee si omoro la jangé ñëw comme ni la ko waxé man fuma fu ma jàngee ñëw loolu la rek mhm. man dama goré na la man ki moo ma jàngal ñëw ñoom suñ fa génnee mun naa ya, ne dinañ góore woon ne ya, kii moom a jàngal ñëw man ñëw defaguma ci dara xale man xale bu ndaw la passé ma non non non bëggu naa fu ñuy seen gaa ñu seen ma fa dama doog commencé maa ngi ñaan yàlla tamit xam mu yóbbu ñu si yeneen niveau foo xam mm. ne du fii loolu rek waaw waaw mba am nga soxna non non non non wala la xaar takk soxna ah time la rek bu ko yàlla ya dogalee loolu rek léegi ma ñëwaat ci loolu naka nga nekk di dundee ak jànq yi comme que yow yaa ngi nekk ndaw <laughs> yaa ngi déedéet dañuy waxtaan parce que nii seetaan ñoo ma yónnee pour ma laaj la léegi naka nga nekk di dundee ak ñoom euh, comme que yaa ngi nekk ndaw yow yaa ngi bugg a àgg foo xamante ne yàlla fa yàlla àggal tamit foo xamante ne ñëpp foo taxaw rek dañuy ne Omaro moo ma dagal lii wala ki Omaro ngi nii di ñëw. waaw gis nga ah, yombul nag mais. waaw léegi amul yombul nag <laughs> leeralal mbir mi. non non xam am nga doomi arab ne foo bëgg a dem. Mm-hmm. yow yaay xam lu la fa yóbbu. waaw comprendre nga. Mm-hmm. xam nga wax ko tamit dafa métti. ah méttiwul kay. non dëgg <laughs> dafa métti nit ñi mën ah. nañ koy dégg xam nga ñoom bëgguñ kenn ku tardé. Mm-hmm. mais ku tardé tamit ñoo la tardé comprendre xam nga du ma wax tur nag. ñoom ah. bëgguñ ko tardé mais ku tardé. gars yi nga wax de waxuloo moom de gars yi wax. waaw non non non comme comme man moment bii ma lay wax nii xam naa ku ma doon comme. Ah. man maa xamul te ñuy seetaan tam xamuñu waxal gars yi ñu xam. ah non loolu problème man naa man tam fu ma bëgg a yegg naa fay yegg rek. Hmm. comme lu gàttal wax ji mooy man kenn du ma tardeel. nooy non non non xale comme comme nu may dund ak ñoom dund de. c'est hmm. que méttiwul ñoom ñëpp ay yaay faal lañ man baay faal laa tamit comme léegi lu hmm. xam nga man tamit man semuanya kasih aja rek pada nasi. Munggu, Leo iya, ulan nggak promise gak depan at nggak boku ci leni. Kan. Nyakup nek kesal beter. Kan man, no nah. legi gitu terek. Ya, Dede legi gitu te, ya. mau mau mau mau nek kesuba so. So tadi ini ralek. Anggo ya. Kesuba, dapat tak jabar walau nggak nek. Next year, dapat tak jabar. Nih nih mana kap. Kunjung kami tanya nih dong kacau tapi nih gimana degar. Anggo ya lama dogal. Kak, buku mhm. ya dogal ya rek newul lu ngay daw de mais lu yalla wara dogal la. xam nga yalla tamit day dogal way yo tamit da ngay plan waaw nga ne man sax at bi ne bëgana tak jabar yalla tam dina la jàppale mu gëna gaaw. waaw si way jabar tamit xam nga. Hmm. dafa des si dogalu yalla bu yalla waxee ne heure bi di nga am jabar. ñeen suma gaay dafa melni Omaro ba léegi nangu ta wax de Omaro nangu ta leeralal nit ñi kañ lay tak jabar nangu ta leeralal nit ñi. tam lu muy dundee non bu dina tak jabar du hmm. problème nga bëgg tur déedéet nah. loolu <laughs> ah, nah. ah. ya hmm. ah. la gars yi bëgg te loolu laa bëgg a dégg. man tamit nit ñi mën a xam loolu lañ bëgg. man dinaa takk jabar. bu soobee yàlla. lu may wut su ma si xawee jot rek. ma takk. gars yi dégg ndoo Omaro nee dina takk léegi Omaro lan nga mën a xelal yuut nga xamante ñu ngi mel yow nekk ndaw nekk di yëngu si wàllu métier bu nek. lan nga leen a mën a xelal pour ñu am jom ñu hmm. yokk seen liggéey ak ñi nga xamante ñu ngi toog nekkuñ di def waaw ah lu ma leen di xelal rek xam man tamit moy xelal dama ci boole suma bopp xale la mhm. nekk ma mag mhm. jàpp te rek mhm. baña a wax ni ni ni ni mom bo boo leen déglu foofu bu ko yegg do fa yegg di nga gis ko ne li baxul fek ci lolu la waaw legi nak yow da ngay xam sa soxla lo tax jog rek nga tey ci man tamit li nee naa ci lu bari deg na ko ci mais gis nga tay tamit yalla ngoy sutural ñaanuma kenn lu mu bëgg tay lu mu bëgg moment bi mën naa ko dem jëli fu ne nii bu baax ñew ma kenn de man dal lu may bañ moy xey tok di yaakar ko xamne neew fi fii ko mënti gis amna ah. ño xamne ñu ngi ñu ngi fu gaay di yaakar mais da ngay gëm sa bop ñafé mhm. liggéey xam lo taxa jog xam nga ëlëk bo amé sa jabar do dem na bay may ma yaay may ma yaay dem yoral ko sa bop ah. xam nga da nga war xam lo taxa jog la si bi goor da nga war a xey mhm. doori war waar moy jëfu goor bay war non ngay mel ñun loolu la ñuy dund ñun. Mhm. waaw man gis nga Baye Fall su ma lu ma jaaxal moom ñoom du ñuy wax du ñuy wax ci kaw de waaye amul lu tubaab bi wax green si nekk da green grass noonu la Baye Fall li mel waaye loolu nekk na loo xamante ne am na solo joxe nga advice boo xamante ne ku ko dégg tamit dina continuer am jam si li nga xam ne loolu la nekk di def léegi yow Omaro yan difficultés kon yan tolof tolof nga nekk di dund si wàllum ñëw bi ak si biir dëkk bi tamit. non man wax dëgg yàlla bu dee dëgg rek moo tax a jóg. Hmm. non maa ngi koy dund nice. Ah. waaw c'est que dama wax naa la si début dama nekk di léegi ak suma sista boo xam ne comme moom day xool boppam si Omar man mhm. may xool suma si moom. Sali Cissé. komp mhm. nga. jeex na bëgg Ibrahima Darame. komp <laughs> nga. moom na man moom maa fi des. Hmm. mais yàlla bu ko dogalee rek. dina ma lu mu di xew daal mhm. ah sant yàlla daal xam nga tamit. ku wéerul fenn da ngay ba ma. comme soo wéeruwul toogu boo wéerul nii moo la jàpp mais konoon daanu nga. daanu dafa am dafa am fu ñu mm-hmm. wéeru. Mm-hmm. xam nga loolu moo ñu dimbale su bari tamit neexul amuloo foo wéeru day soo amul foo wéeru da ngay naxaree jàppale. Mm-hmm. nit tamit balaa mu lay gis dina jàppale. foog mu gis ne yaa ngi góor góorlu mu mun di la jàppale. doomi aadama bu ne da war a xëy jàpp si dara. mooy tax nga doon ku nga war a ah, doon. Ah, mu ngoog léegi naka ngeen nekk di dundee business bi ak coronavirus. ah parce que lekk na loo xamante ne lëmb na réew allah jaaxal na àdduna réew mi àdduna la. àdduna ñëpp kay. àdduna la xam nga bu fële métti rek fii métti. waaw léegi nag comme nga bu doon ñun rek la yaaxal. Mhm. ñun dañ mën a wax ne waaw. nii mais àdduna la yaaxal ñun ñun ñoo gën a ndaw lu ñuy def si àdduna bi. xam nga ne ñun fu mu ne nii am na ñoo xam ne yaaxal na leen loo xam ne nii ñun suñ xel sax xelu àgg foofu. Mm-hmm. ñun ñu ngi sant yàlla ci moment bu ñu nekk nii xëyuñ mar. Mm-hmm. am na dëkk yoo xam ne dañ xëy génn. ñun ñu ngi xëy di doxi suñ soxla am na ñoo xam ne heure bii ñu ngi seen kër tëdd liggéeyuñ mais man moment bii lu mu bon su ma xëyee dinaa mën a téye si loo xam ne naa si mën a dund. man moom yërëm moom suma bopp maa yërëm ñoo xam ne nii ñoom ñu ngi koy yëg bu baax. sant yalla tamit moñu ko tek nattu la bu yalla wacce ci aduna mhm. legi tamit ñun nañ ko nangu rek xam na la mhm. xam nga lii di wax fe pour ma wax ñuko gëmul nañ jàpp ne lu am la mhm. mais man mom yërëm mo sama bop jaam ñi la yërëm jaam yalla yi way comme que legi waxtu xaj nañ Omaro dama lay bay rek nga wax say cadeau yu mujj bala ñi tagato waaw ma ngi sant tamit ñu ma jaafale mo yegg fi waaw di gërëm ñëpp ko ci melni Sali gërëm ami jaw suma jigen ci bon lu jigen bu baax a baax hmm waaw ma ngi ni di gërëm bu baax di gërëm suma yaay awa diba di gërëm kooku mbokke aada di bala waaw si ma ko wax bi bo nga xam lek rek lay def tooñ rek lay def dafa baax de aada dafa baax de waaw di gërëm mère Hadja di gërëm suma booy na ñu may liggéeyal ko su beli sol mom mom mom yaala koy fay xolam mm-hmm. dafa baax moy mm-hmm. suma opérateur bi dafa bax de wax dëgg yàlla di gërëm ku melni Keba moy boy mooy ñëwal design wax dëgg yàlla moom it la di gërëm Demba di gërëm Samba gërëm Yankoba Yanks yang, ngi gërëm Modou di gërëm musa, may ngi jam nyop ñëpp ñëpp di gërëm oh, suma oh, baaywaal oh, bo xam ni uh-huh. nak suma benn baaywaal ñi mm-hmm. Dakar Sénégal ñukoy wax Abdourahmane Tilala Fall ñi suma tom ay sëriñ maa may gërëm suma beneen bayival ñu koy wax sëñ bara mhm. moom muy bañul fi ci marché bi di dóor waaw bayival yi ñom ñep di mhm. sant ñep nag gërëm ñep mhm. di la gërëm yow ma dalal di gërëm ada waaw di wax nak ne TV bi yalla nako yalla yobu ci kaw fu ñuy séen nen télé ñu séen ko fa mu nekk télé fausse télé bo xamanteni ne xam mo yegg fu ben télé yegul am len jaamu yeen ñep ziar leen bu baax a baax a baax. waaw waaw ñun mii sax kontaan leen Omaro thank you so much ñun mii nga xamante ne wax kool nañ la nga bàyyi sa soxla nga ñëw ñu waxtaan ak yow nga wax ñu kan mooy Omaro kon yéen mi doon seetaan Omaro lañ amoon si biir kër gi borom Omaro Creation moom nga xamante ne mu ngi fi di dagg rek di yàq rek di def yoo xam ne bu la xottilee rek da kontaan foo foo ko munti sol rek di di di naxal waasa dañuy wax ne Omaro jaar fii ne kon nag di leen jaajëfal baax a baax yéen mi doon seetaan seen émission. looy yëngu sori. waaw léegi léegi léegi bàyyil ma ñëw. léegi bon bon xam nga Omaro dina mën a wax fu nekk. joxe numéro bi xam naa. n'est-ce waaw waaw ñëw si loolu. xam naa ne bu bu ñu Omaro joxe nombre bi. dinañ ko bindaat si suuf nga xamante ne ku ko bëgg a jot rek dina. dem ci ci Pagara numéro bi numéro bi jox naa leen ko mu ngi noonu. ah ok number bi moo nekk 3 3 6 3 6 38 703 3 6 38. 730 ah 730. waaw 36. three zero. non three six three eight. ok waaw léegi waxal ko gars yi ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan dinañ ko mën a. am naa koor gaa la jàpp rek. koor gaa la jàpp damaa xiif damaa gëmën. <laughs> waaw ñaar yëpp la boole. waaw three six three eight seven three zero boobu mooy mhm. whatsapp bi. c'est mhm. nga suma QCell bi temps yi mooy loolu. waaw ñu pay mais ku ma bëgg a call Africell nga may ku mën a am téléphone call. luy Africell bi Africell mhm. bi two zero six. one four four two. two zero six one four four two. waaw maa ngi ci mall bi shop seventy four. Mall of the Gambia foofu laa nekk. foofu ca Ciba Garage jaaga na am na solo kon nag ñu bàyyi leen rek Omaro mu tàggatoo ñu dem ba beneen. waaw comme dab rek santaat leen gërëm leen bu baax. sant jaam ñëpp yàlla defal ñu jaamu ñun ñëpp. incha allah thank you so much bye bye.